dem te dañu wax si coowal làmb li nga xamante ne dafa xew temps yi muy coowal lomotif ay nit génn naan dañoo yor ay lomotif ay lomotifu mbër ay lomotifu promoteur ba commencé tâcher li nga xamante ni mooy image yu làmb tey bëkk yi nan nga sorte yooyu nga xamante ni gars yi def nañ ko jëmale si lomotif yooyu. Mhm. voilà coowal lomotif bi la si wax loola kenn mu sawar. xoola yoruñu daara est-ce que xam nga gars yi yoruñu dara. yoruñu daal ak li ñu ko yëpp yoruñu ko. ak li ñu ko yëpp. voilà woon bu ñu tëgg ñoom. Mm-hmm. chaîne la chaîne. Mm-hmm. xam nga Adama la moo tax mu xëy génn ci. Adama waaw. biñ ko nettalee kan ak kan moo nekk ci dil bi. Mm-hmm. dafa am kuñ ko tuddal ku nekk Amérique mu xam ne moo kooku juboowuñ moo tax mu rocceeku. ok. amuñu dara. loolu dañ ko defoon. pour chantage ay nit. pour chantage si làmb ji. yoruñu dara. pourtant na ñu naan gis nañu xool am na kenn kuy wax ci làmb kooku da kuy wax ci dafa am kuy wax ci làmb mm. kooku dafa jël numéro numéro numéro kenn mm. yónnee ko Bakary jublu si lan ah mais Bakary Bakary newu fi Bakary dafa nekk Sénégal léegi lan moo yónnee Bakary ay affaire dugal ko ci dil yooyu parce que am na ñu nekk fii di wax ci làmb te gëmuñu seen bopp mm-hmm. booy làmb du xam-xam yàgg fekkee la tey fii boo fi génnee père ngañ jaañ kii naka la tuddati papay Sidi Diop bi naka la tudd Mbaw père Diaw mm. yaa ngi dégg mm. kii père Birahim mm. ñooñu noonu ñi ci des ñëpp xamuñ ci làmb tous ba si ñuy teg plateau yi. ma déglu yow parce que rek wax naa la fii lu xam ne ci làmb kenn waxu la ko man maa ne la roi de arènes. man maa ko fi njëkk a wax ne la xoola Tyson moo daan manga gars yi song ko presse bi song ko mu ne respecté leen ma xam ne roi des arènes ngeen di waxal foofu la le mot roi jóge mais bi muy bëreeg manga boobu xaalis moo leen boole doon titre te bi muy bëreeg manga fekk na tubaabu joor daan manga ana roi xoolal li ñuy teg si bopp bi nii Aziz Ndiaye moo ko fi njëkk def def mm. Yékini moo daan Bombardier mu décoré ko ko mais mbaxana yi pour miis la woon lamb drapeau la moom kii de waaye pour miis la nga ma maam waaw xam nga la la seen mbëri bu demee ba nga leen di takkal li ñuy takkal miis yi ah. man seen affaire man mi ngi may bëgg a jaaxal quoi boo ma déglu man daal déggoo ma loolu kay boo ko xoolee ah. génneel miis senegal génnee bu bu de des arènes li muy teg si bopp beeg miis Sénégal non jumbo jumboori bul xas suñu suñu titre ah, waaw xasuma ko dama ne ñëwoon dama ne la manga drapeau ba mu nga këram ba tey mu denc mhm. aja macha allah léegi ñoo si coowal le motif bi parce que commencé woon na. non non wax naa la ne la. dil bu ñu tëgg. Mhm. li tax aadama rocceeku ci. Mhm. mooy dafa am ko xam ne dañ ko ko tuddal ku nekk ci Amérique moo xam ne moo kooku neexoowuñ te kooku nitu dëgg la si la rocceeku soo dellu see dinaa tudd turu kooku. am na kuy toog si plateau yi fii gën a toog si plateau yi gën a bari wax moo jël benn numéro ak yooyu néew yëpp moo ko yónnee. Eh, waaw loolu leer laa la wax man dama laa wax rek. kooku pour yàq deru jàmbur yi ay pël yi mu bëgg a yàq ak ay Luis Ndiago mi nga xam ne démb la judd ba mu ñëwee yàggut. sama doom la. Oh. comprendre nga Luis muy Luis Luis. taxaw fii la xale bu ndaw la du dara hmm. Siteu sax xale la Siteu hmm. bii xale bu ndaw la mais yow pour ñëw nga yàq ñooñu mais ban chance la la amal ban chance. c'est que Këtsu Bakary bu continuer analyser am lu muy analyser baax na mais buñ ko bëggee dugal ci détails yi bu yàggee mu waye di mu waye di mhm. parce que Këtsu Bakary tamit dafa war a xam ni wax dëgg yàlla combat yi ñu ko téye MMA naroon koo faat mhm. wàññi population Sénégal bi mi ngi fi waaja naroon na koo faat de kan non parce que dama ko wax ah duma wuñ ko waa ji yéeg si kawam di dóor mm. bis boobu sax dama ko yërëm non la te ñooñu xamuñu ci làmb dara ñooñu bu ñu bu ñu munee toog fële di wax ci làmb di xas nitu làmb di xas paawu làmb yi mhm. tamit loo reewande la quoi wala analise ak ak reewande du benn dafa am ñu xam ne dañoo reew mhm. parce que fekk ku toll ni per Diaw wala per Mbaw wala per Birayim mhm. wala dara père Bekaay nga leen di xas loolu reewande la bokkul ci analyse làmb te ñoom ñooñu père Bekaay bi nga xam ak ñooñu noonu xas nit indiwu leen fi danoo doon wax lu baax ba nit ñi xam leen ci ku leen fi bëgg a jëlee da ngay wax lu baax ba ñoom ñu joge fi nga toog mais du wax lu bon ngay demee di wut ay vie yooyu amul sens mm. wax dëgg yàlla waaw wax nga li am solo ne nga Bakary li mu jot nit ku nekk fi si làmb ji ku siiw moo ko kii. tey tey gisoon nañu moom tamit doon dof bëgg a dugg ci détail. mais gisoon nañu ba pare ñu ko doon ñaan naan dañ koy ñaan njekk ban ñaan njek ba pare boo toogee naan Balla Gaye bokk ci Modou Lo bokk ci diw bokk ci am ñoo bàyyi saaba veut dire que yow ñaawal nga der xoola ci jullit dafa rafetul xoola bu mbooloo àndee di dem nga ne njool mee ma neex da ngaa jotee ndaama ga. Bakary na bàyyi li muy def. fan yële déggoon naa ko fi mu ñëw di tagg pël di xas abu nduur te ñooñu bokk benn benn alburaax loolu ak waane ak wimi wimi sele ak rambaaj la hmm? kër si na bàyyi li muy def ak si ki ma mboom ni mbomb na bàyyi li muy def bër wuyul waaw vraiment man buy ŋaa gémmiñ gi day mel ni pare-brise boobu muy toog na bàyyi li muy def te analyser te yamti ku si naa la nga naa am ay kër si Bakary kooku est si la kooku day kët man dañ ma doon leew di ma yóbbu làmb déggoo ma làmb ku ma ko gën a xam newu fi déggoo ma ma wax la dara père Balla bëre ji na Kaolack yóbbuñ ñu nekk ay xale yu ndaw mm. mu bëreeg maam njambaan ñu mat si niil kooku bañ ko fay ci benn guddi père Balla dugg si benn fuur mburul mu tàng lañ fa jëndal ñun ñu reere ko gënu ñoo xam làmb laa wax làmb mën naa laa wax bis bi ñuy dox gàllaaj mm. bis biñ koy jëli ak kan moo war a dox gàllaaj ji ak lépp nga ma si loolu balaa ñu non non yow bàyyi noonu yow da ngay ñu def spécial lamb ba pare làmb fii ki xoola pour laaj làmb nit ñi ci war a wax mm. père maanga père Birahim ñoo ñëm ñu ngi dund mm. Balla Beye 1 ñooñu ngeen war a dem jël ñooñu ñoo xam technique gu làmb ba pare làmb mbër champion ak ak mbër du benn ak showbiz am na mbër yoo xam ne showbiz la ñuy def mm. làmb ñu du lool du làmb mm. ba pare bu njëkk ba da nga daan am mbëru séeréer am mbëru olof mbëru waalo waalo mais léegi mbëru koñ moo am macha allah macha allah mais mais mais sànq dafa damay damay rebondir un peu balaa ñuy tëj rek sànq sànq dafa am li nga xam ne dama la ko fàtte laaj si coach Bakary bi lomotif yi amee dafa génn ni ciblé ay ciblé ay personnes ñu diw ak diw ak diw ñoo waral man ko si Bakary ma téye vidéo yi mais bu dul woon ñooñu damay dugal vidéo yi mu lim si Boucher Ketchup lim si Fadam lim si Bour Guéweul ñi ñooñu ñaan njekk moo waral publier wul li nga xamante ni mooy vidéo yi tey boo bu gars yi del ni loolu amul tamit kon day mel kon comme si kon ñoom Père Bour ak Fadam def nañ li nga xamante ne dégguloo ma xam nga moom bi mu tànnee ay nawleem ne ñooñu ñoo ko ñaan njekk mm. ñan la tànn ne ñoo ñaan buur fadam buuse këcëb mm. ay waxkat lañ comme moom bu waxee ñooñu wax delloo ko lu tax moom bu seddu ñooñu cër te seddul ñëre cër mm. parce que xam na ni ñee ñee ñoom mu tudd ñooñu ñëpp lu mu fi bax ñooñu ngeer ko parce que ëpp leen ay vie mm-hmm. léegi dafa tànn ñee nga xam ne bokk ñoom ñoom domin di leen ñaawal naan ñoo ko ñaan mm. boo nekkee ci làmb laa la wax nii ñi ñi tax làmb di dox mënuñu laa ñaan nga may leen waane nga saytaane nga nga naan maam benn ba yorul dara mhm. tous yoru ko dara la yorul dara xamul ci xoola làmb tamit xamu ci dara xamul ci làmb tous mhm. macha allah dara xamu ko ci làmb déggoo ma boo ñëwee fii ñu def spécial làmb mhm. ma wax la ni ñooñu xamuñu dara ci làmb te ba làmb di am ba léegi saa boo leen ñëwee si man lu ma la wax si làmb làmb noonu lay demee. macha allah ñoom dañoo xam ci làmb dara naan gis naa diw mu mel nii gis naa diw mu mel nii loolu du analyse u làmb hmm. làmb xoolal da ngay dafa am nuñ koy analyser sax hmm. comme ni ko per père Birahim père Ngañ Jaañ ñu noonu di defee hmm. mais ñu sax kenn déglootu leen ndax ñenn ñu bari wax ñii ñii dañoo xam ci làmb dara ñu bëree xamuñu làmb defuñu carrière ñu dara ñoog arbitre CNG yeeyam xamuñu règlement duñ tous. macha allah ah. am na am na solo yaakaar naa CNG bi nga xam ne mosut a bëre mos xamul si bëre dara. dinañ dinañ CNG nga jox kanji. waaw jërëjëf. nañ jox kanji CNG bi. kanji man kanji mel na. kanji mooy waa ji fi tëggoon combattre ki mu tuddee drapeau bi ñëwul mu naan kenn du fi bëre. déedéet kanji xamoo kanji. waaye mooy kanji nga naan lan boobu xale nga xale nga kanji def na fi loolu may ma jàmm. mooy xale la. non may. Kanji ba muy doog a ñëw Kanji Kanji mbir la woon. mais léegi de moom macha allah. laa wax moo tuddee ni drapeau di soufflé mu ne mukk kenn du fi bëre. kooku dama laaj ko. ah mais tamit loolu dama dëgg la <laughs> loolu kenn nangul. <laughs> aywa mooy meilleur waaye ñaan naa ngir yàlla CNG Tyson na fi. nga lan père Manga mii rek waroon nañ ko sàggalee teen CNG. Mm-hmm. moo leen daq jàng fuuf Manga moo leen gën a yeew lu tax père Manga yore li yore yi. pas mbër yi te amuñu problème kooku duñ jël làmb ji CNG jox ko. macha am na solo macha allah am na solo njiital euh, Alburax def na tey wala def na demb benn sortie waxtaan si problème mu Balla Gaye ak Sa waxtaan si coono fi amoon. wax na si problème mu Balla ak Sa Thiès laaj nañ ko si. wax na si Lac de Guiers 2 bi mu nekkee si ay jafe-jafe wax na si Balla Gaye 2 ak Moustapha Tine mu def sortie bu am solo jëmale ko si ñooñu tey en tant que tey chroniqueur nitu làmb tey bi nga déggee kaddu yu Ndiaye euh, jëmale si Balla ak Sa Thiès lan yëg-yëg bi lan nga Aziz moom ma wax la dara lépp lu mu nekk luy jëriñ ay nit daf ci am. Hmm. musul nekk ci luy lor nit. Hmm. amaana sax moom da ciy loroo. dégguloo ma lépp lu mu nekk luy jëriñ nit la laa wax te nit ku mu mës a téye nga dellu ginnaaw wax ma ko. musul té ban nit moo nekk ci Aziz Ndiaye dellu ginnaaw ban mbër rek nga xam mu nekk ci Aziz Ndiaye di yalwaan. waxal rek ah wax dëgg yàlla. ah jàmbaar la nag. lu mu leen wax noonu jàpp leen ko. Mm. Aziz dimbale leen ko. wax dëgg yàlla problème Lac naan jàppale waxu te moom génn na ni yàgg na jàppale Lac de Guiers yàgg na jël Lac de moom moo waroon a jàppale boppam segam booy bëree ñëpp bëgg nga daan mhm. waroo nekk ci yenn yi mhm. wax dëgg yàlla waaw Lac de moom ñi ko noonoo bari mhm. xam la Lac de Guiers gars yi koo bañ bu ko suul carrément mais Lac de Guiers mbër kaamil la ndaanaan la nii muy bëree Père Mor Fadam yàlla na ko yàlla yërëm a moo père Mor Fadam la daraan taxaw ne taj taxaw di la nat mm. bu la buñ jàppantee mu jeex te la dëgër ku mu dajal mu ngi lay dóor ba ngay naaj ci gars yi naan ko bëre woo luñ bëgg mm-hmm. wax dëgg yàlla bàyyi leen doomu jàmbur ji boo leen amee komba boo leen ko jox ngeen jox ko moo gën quoi waaw la dëgër tamit na yem mm. waaw du ambassadeur bay jël ay yooyu yooyu pomme passé na nee ko daal mu xam ci nu muy dugg xam lu muy génn lak daguerre xam waaw xamal ci li ngay dugg xamal ci li ngay génn ñenn ñi dañoo jël ay influenceur mm. ñu lay diaboliser di la xas ak yooyu ñooñu nañ bàyyi loolu mm. waaw la de guerre ak sama mbër mi Alioune Seye waaw Alioune mooy sama mbër man waaw mooy sama mbër man waaw Alioune non mooy sama mbër mooy sama mbër quoi wax dëgg yàlla man côté bi laa dëkk waaw sita kii naka la tudd rëg-rëg mm. mais Alioune moom sama mbër la quoi non ñooñu xamaluma leen dara bu ñu xulooyee eh, ñàkk fayda parce que ñoo bokk seen ndey ak baay. Hmm? xam na waaw. ñooñu ay nit buñ ci nekkee xajuñu ci ñu bokk ndey ak baay. Hmm. Balla Gaye ak Sa Thiès tamit Balla Gaye moom wax dëgg yàlla askan bi mu bokk. Hmm. ku ko gërëmul waroo koo xas. parce que lu ñu doon bala la. ah ah moo taal lamp yi moom. wax dëgg yàlla. moo taal lamp ah, moo taal lamp yi moom wax dëgg yàlla mbaa laay seen moo gëdd. <laughs> Eh, macha allah ah, waaw dëgg yàlla kan Balla. non non bala Balla jarul digal Balla di ngay gis du ngaaka de. Mm-hmm. wan billaay walaay fekk man leen rek moo ma neex si moom. Mm-hmm. xam nga xol bu rafet bi quoi. Mm-hmm. xol bu rafet bi moo ma neex quoi. amaana Balla lii mu féete nii. ñu bëri buñ fa féete woon seen famille duñ tekki. mais xam nga bon na rakam parce que Sa Thiès soo gisee carrière bi gaaw jàmbaar la trop mën na bëre mm. mais boo gisee carrière bi gën a gaaw nii sax Balla la mm. parce que Balla li mu def ci làmb mm. jafe na pour mbër def ko waaw dëgg yàlla jëmmal na dubales daal jëmmal seen famille waaw li mu def ci làmb jafe na nit def ko fi waaw ëma seen nee ko mu jël Alioune Seye waay mu jàppale ñu ngir yàlla li oh, ko jël ëm jël ko waay combat boobu day neex waaw Baye Ndiaye borom seet bi Baye tëgal combat boobu. Eh, Baye Ndiaye borom ñaareel bi sama xarit bi. Ah, waaw Baye Ndiaye waaw. <laughs> mi ngi se leen di mel ba léegi ñëw. sama gaay la waaw. mais léegi mu egsi de. léegi mu ñëw wax na de. waaw sama waay la ñoom. waayal gàmm gi alburaax samay waay lañ quoi. su su Aziz Ndiaye Aziz moom sama waay la Aziz nit ku baax la. nit la koo xam ne nii bu la xasee xam jeex na fu mu la séen. Mm. xam nga bëñ ñi ngay séen ba pare lu mu yor si poosam jox la. wax dëgg yàlla yal na ko yàlla may gudd fan ak wér gi yaram daal kontaan naa si moom trop Ah. waaw jàmbaaru jàmbaaru Amine kenn du moom. Abu ñoom ñëpp samay gaañ. macha allah kontaan naa si ngay tàggatoo. kontaan non kontaan si yow rek yow tamit. Mhm. Ah, di la wax nga dem gàmmu ji moo gën quoi mais nekk fii di lëre sëñ bi naan di tudd burdu ba rek te doo dem. non ñun ñun ay talibé di rakkaaju ba keroog gàmmu. waaw loolu la man nag bañ xam nga bokk ci seex. ak bokk seex du benn de. xam nga lu ma la wax bokk seex ak bokk ci seex. du benn Cheikh laa bokk ah waa ban kon sama maam mooy Alaaji mu xaddamu sidi xaaj heure bi ya waroon na fekk nga dem di alaaw ma si la di jolli ah non non garaaw <laughs> amul problème fii fii du ay jàng quoi mooy demal bala ngaa am buzz waay <laughs> eh tagal yat bi yow <laughs> jumboori jël ko dafa neex <laughs> macha allah mi mi mi mi ngi noonu am na solo jërëjëf euh, euh, sëñ Babacar ah, borom mouvement jàpp ma jàpp mbokk yaay Karim Wade maa ngi lay kontaanee kooku taalibe Cheikh la bu gàmm gi tolloo fii suñu xel lay dem si moom ki nga xamante ni mooy Babacar Ngom ah Babacar Ngom bu yaraax ah kooku tamit ñoo ngi koy kontaanee bu baax mbokk yaay amin moom Babacar Ngom borom yaraax di taalibe sëñ Babacar moom aussi tamit ñoo ngi koy di ko ñaanal jàmm te di ko ñaan yàlla suñu borom bi fekk mu fekkee gàmm gi ba lépp lu mu si defoon daaw yàlla na am lu ko ëpp mais Fouta production Badou daf ma yóbbante nee na ma ñaari nag la soxla si bi lay gàmm Fouta maa ngi lay ñaanal suñu borom bi yal na la yàlla suñu borom jox li nga ba mu des nga mën ko bokk ak jaamu yàlla yi si baag Seydina Muhammad Abdoul Aziz sa waay ne day ñëw al amin waxal ak moom na al amin waxal ak moom waaw al amin sama waay la daggali envoyé ko al amin paasu gàmm gi ak yóbbalu gàmm gi jox ma ko comme ni nga daan def comme dab rek macha allah waaw defal loolu dañ si jot dinaa ko ko jërëjëf mbokk yi li fi neex suñu borom la li fi naqari suñu mat di la dañu bëggoon lépp neex dig daje beneen si beneen numéro ñu waxtaanee ko jaa ngi